li nazmi targhibul muridu sadiq ci baabu nawaqidul wudu bunt bi day jàngal li firi ak njàpp li nga dégg ulama yi wala nga dégg ñiy firi ne nawaqidul wudu li toj firi njàpp nawaqidul wudu li yàq njàpp maanaam ñetti firi yooyu yëpp seen maanaay benn luy toj njàpp lu koy yàq lu koy firi yëpp benn maanaa di lay firi mu wuute na moo tamit nag baabun lii buntu lay jàngal na wax du wudu lu yàq njàpp maanaa daf lay leeral yuy yàq njàpp muy al umur lati tabtul xukmu wa ibaatul mamnu bi duni te dafay waral sabab ak war ak njàpp beneen yoon bu fekkee borom amoon na njàpp eh, yàq njàpp nag ñett xaaj la wante bàyyil xel boo gisee ñenn ñi bu ñu jàngee téere sàngam jàngaat weneen téere am solo mooy nooy jàngee rek xam-xam di yaatu wante boo demee woon ci matnu al-Ashmawi moom daf la waxoon ne yuy yàq njàpp wala xismay ni ci ñaari xaaj fii nag moom jàngal na la xam-xam ne ñett xaaj la mooy axdaasun am na ci ay toj wa asbaab am na ci ay sabab وغيري ما ينن يدوي لمن رده وندفع دول شقاع ما يتل قاجو أكسك جاء أكتج نعل الموي يتل قاجو وأنت يبغى دم جاس ما يهون فاني يارك قلجرد موي أمن جاء أكتج أك أي سبب موي أك أي سبب تج أه. موي أحداث وأسباب الأحداث نلقى برم متنا الأشمعي نلقى تنكيون بنيت بنيت بنيت mooy euh, bu ñu toj fii mooy loo xam ne dafay yàq ak njàpp ci boppam te mooy loo xam ne dafay euh, lépp loo xam ne génn na ci benn ci ñaari génnuwaay te doomi aadama ñaari génnuwaay la am rek mooy kanam ak ginnaawam fu muy turee ndax fu muy demee woon nag bu fekkee benn ci ñaari génnuwaay am na lu ci génne rek loolu mooy xadas mooy toj. ci anam woo xam ne wu ñu baaxool ndaxte léeg-léeg nit dina génn benn ci ñaari génn waay yooyu ci génn woowu du wut anam wuñ baaxoo masalan koo xam dañ ka dóor mu tiir euh, tu génne ma ni wala mu daanu tiit daanu daanu wu métti rek ah dal di tuur ndox yooyu du wut anam wuñ baaxoo wuñ xam kon loolu du yàq yàq ولما حدث حدث ده ما ينقض موي لا دين فيري على ودو نجاب بنفسي وهم ما يخرج موي لب لو قم دين مجن من أحد مخرجين بين نياري جن واي وانت معتادا معتادا في السياح بعد من باخوج أكبر أه، السبب نبين كوخي نعدو عنا لا أه، يقن جابو ثلاثة أقصى من أعداز وأسباب wa xëyri ma ak ridda wa shakk fi lhadis sabab buñ ko waxee maa yu addi mooy loo xam ne dina bijji jëm ci ak toj mooy loo xam ne dafay bijji nit ki jëlee ko foofu yóbbu ko ci ak toj lu mel ne ak nelaw ak laal zakkara yooyu bu amee rek dafa yóbbu borom ci ak alxadas muy toj te dina la wax xadas woowu lan la comme ni ko borom xam-xam yu bëri jàngale moo tamit ne nawaaqiduhu mu ngi lay jàngal na xismu wu njëkk wa muy xaaj wu njëkk wa mi ne yanquduhu dina mu firi njàpp mm-hmm. ala addamir yarjiu ila alwudu yanquduhu dina mu firi njàpp mm-hmm. woo gi mu ngi dellu ci alwudu njàpp mm-hmm. mooy baabu nawaqidul wudu nga ne ah mi ne yanquduhu dina mu firi njàpp dina yàq njàpp dina tëj ak njàpp nga ne ko lu koy tëj mi ne arriddatu Mm-hmm. wante boo demee ci borom asmaa yi moom dafa daf koo indi woon ci asbaabul aadaasi la ko limoon moom mm-hmm. moo tax mu nekk ñaari xaaj mm-hmm. wante kii nag moom daf ko séddale boole ko ci xaaj yi muy ñetteelu xaaj wa mi ne aridda mooy murtad moo ana lan mooy murtad bu ña murtad mooy kufrul muslim mooy weddu jullit wi ci wax ju wér waaw weddi yàlla wala mu jëf-jëf joo xam ne dafay làmboo ak weddi yàlla lu may lu mel ni ak sànni kaamin wi waaw te jubli ci ak toroxal kaamin loolu dafay wane ak kufru wala lenn ci kaamin mu sànni ko fu salte donte sax lu laab la waaw kon nag aw baadu fi xasri wala daahirin kon loolu tamit dafay wane ak murtad da la yeneen wala may wax na ci leneen lu uute loolu kon murtad hmm. dafay yàq njàpp hmm. te alquran wax na ko la in asharakta hmm. la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin bu wóor ne la in asharakta bu nga boo bokkaalee rek la yaxbatan dina sippiloo amalu ko sa jëf wala takunanna da ngeen nekk ne min alxaasirin bokk ñuy perte kon arridda murtad dafa yàq njàpp mais eh, moo tamit ne fa yanquduhu dina mu firi njàpp arriddatu murtad te képp ko xam ne jàpp na mu murtad delluwaat ci lislaam mm-hmm. war na ci moom mu jàpp mm-hmm. ah, dong nag mm-hmm. alal masuur ci wax ji gën a siiw eh, aw chakkun wala mu sikk sikk soo xam ne xadasa sosoona fi tuurin ci laab aw naqdin wala ak toj koo xam ne dafay sikk sàkk ci laab wala ak toj man am naa njàpp wala awma njàpp mm-hmm. dafay sikki sàkk ci loolu mm-hmm. ah kon nag njàppam yàqu na mm-hmm. moo tamit ne dina fi dina yàq njàpp ba léegi sikk woo xam ne sosu na ci ak laab wala ak toj koo xam dafay sikki sàkk ci ak laab wala ci am toj daal njàppam yàqu na moo tamit aw chakkun wala sikk goo xam ne xadasa xew na fii toorin ci laab aw naqdin wala ak toj koo xam ne daal dafay sikk ci ak laab walla ci am toj mm-hmm. ah njàppum yàqu na bu fekkee sos na daal ci am ak laab mm-hmm. ci mu dëggala toj ma mm-hmm. muy sikki sàkk ndax jàpp na gannaaw loolu walla jàppoot ah njàppum yàqu na bi maana war na ci moom mu dal di jàpp nag ah moom kookule dana mu firi ak njàpp ba léegi mooy koo xam ne dafay sikk ci am ak am toj koo xam ne dafay sikk ne waa man am naa toj wala aw ma toj ah dafay sikk lool kii bu njëkk mooy dafay sikk ci ak laab te wóor na ko ah, laaboon na muy sikk ne am na laab wala amul laab ah. njàppam yàqu ak koo xam ne dafay sikk ak toj toj le naa wala toj lu ma hmm. ah njàppam yàqu na loolay wax ne aw chakkun wala sikk koo xam ne xadasa sos na hmm. fii tuxrin ci laab hmm. koo xam dafay sikk am naa laab amul laab fa alay wudu fa alay fay jiba alil wudu ah njàpp war na ci moom koo xam ne tamit dafay sikk ci wusulu naaqit ji amak ak toj mm. gannaaw ba mu ko wóoree ak laab bi maana gannaaw ba mu ko wóoree na am naa laab mm. muy sikk ne sama njàpp toj ñaam tojut mm. ah dafay jàppuwaat njàppam daf euh, euh, yàqu na fa Eh, wudu njàpp daf koy war maanaam daal bu wóoree moom mu kalafe ak laab muy sikk ci am ak toj gannaaw laab wa war na ko ci moom ak njàpp zaaniyeen njàpp ñaareel feeg nekku na koo xam ne dafay taqoo ak loolu fekkee koo xam ne dafay taqoo sikk ga ah kon nag eh, eh, njàpp du ko war nag mooy koo xam ne dafay sikk lu bari donte benn bés wu nekk dafay sikk yoon dafay bàyyi sikk wa mu jëfandikoo ak laab ga li xam ne wóor na nag ko ah mu bàyyi nag li nga xam ne moo sosu ci loolu bu fekkee dafa sosu ci moom ci ak biir julleem ah, muy julli rek mu sosu ci moom ak di sikk ne am naa njàpp wala am na ko mu continuer ci julli ga am na yaqiin gannaaw muy sikkee loolu yaqiin ne njàpp waaw ah, dafay continuer julli ga maanaam bu fekkee leer na ko ñeel ko ak laab mhm. ah kon nag eh, dafay continuer julli googule moo tamit ne en xudu dina mu firi ak njàpp arridatu murtad mhm. aw chakkun wala sikk mhm. xadasa goog sos na fii ci laab aw naqdin wala am toj mi ne wasabqin ak jiitu eh, bàyyi xel ah, wóor na ko man daal toj la woon na eh, jàpp woon na wante ñaari lay sikk na ban moo ci jiitu moom kat wóor na ko man ah, moom toj la woon na wante wóor na ko tamit jàpp na ana ban ci ñaar yooyu moo jiitu mooy wa sabt ak jiitu loo bu fekkee dafay sikk sàkk jiitoog laab ak toj ah kon nag ba léegi njàppam euh, dafa euh, yàqu na bi maanaam war na ci moom mu jàpp koo xam ne daa wóor na ko ak laab wóor na ko ak toj mm-hmm. man daal woor na ma ne man mi jàppoon naa mm-hmm. woor na ma man mi kat la woon naa mm-hmm. wante muy sikk ban ci ñaar yooyu moo jiitu wa shakka fi saabiq min huma muy sikk ci jiitoog ñaar yooyu ban la xatta xara wéelu la wala xadas wéem la kon nag wajaba alil wudu njàpp war na ko wala mustankifan donte ne koo xam ne koy taqoo la loolu waa kon nag eh, kooku dafay nekk koo xam ne tamit njàppam dafay yàqu wax tamit wa sabqin ak sikk ak jiitu mm-hmm. ak laab wala ak um tëj mm-hmm. kooku bu amee rek mm-hmm. njàppam yàqu na loolu mooy xaaj wu njëkk wii wi nga xam ne eh, mu ngi la wax ne yi yàq njàpp salaasatu aqsaam ñett xaaj la ahdaasun wa asbaabun wa xayri ma wa shakk fi l hadas mu jiital wa xayri ma wa shakk fi l hadas wante mu ngi lay na toj mi ne wal hadasun toj nga ne ko ah. mi ne tëj bee bawulun mooy saw te boo demee ci borom matnu uh, al wi moom daf laa xaajaloon ne fa amal aadaasu fa xamsa toj juróom la uh, ñetti ci kenam lay génne ñaar ñi ci buntu suuf lay génne ah moom na xaaj bu rafet la ko xaaju nag moom la borom ashalul masalik moom lay wax fii rek ne wal xarasu toj nga ne ka amina bawlul mooy saw wa réexoon ak ngelawal xaayitin dem joor maal wadi ànd ak wadi waxsil raxasal jamial farji mboolem paysa naawin maanaam naawi yan moo fi nekkoon naawi yan mooy mbir moom nga aji yéene wante woyu moo tax mi ne naawin dagg yàgg naawi yan mbir moom nga aji yéene lil masi ñeel masi masi ku ko génnee boo demee ci laxdari mu ngi ko jàngee ñu ne génneeg masi yo dina war a raxas zakkar ci وأنت دو رغ نيار وي يوريا لو لي وخنا يعنى وغسل رغسل إيه، جميع الفرج مبولم بيم ناوين بيرو مي اجيين للمزين المسجد وانا مول بروم اش ماي آه، قاجون تي قاجو رفني فاما الاعداز فقمسه ثلاثه من القبل ويا المزي والودي والبول ñett yi ñooy génne ci kanam bawlu saw eh, ak wadd yu ak mas yu ci kanam lañuy ñuy maana ci génn waaye kenam wi ñu am maa ñaari ci des nag te mooy was naa ne ñaar ñu mën a ci ginnaaw lay génne te ñaar yooyu mooy alxaayit mooy dem joor war yow ak ngelawal eh, mooy ñaareelu xaaj ci yàq njàpp mooy ñaareelu xaaj ci yàq njàpp amana bu ñu nee bawlu saw kooku lu ñu xam la maanaam génn waaye xobul ci kanam lay doon. amaana ngelaw ak dem joor mm. ñoom ñaar seen génnuwaay mm. ci ginnaaw lay doon mm. comme lu may wax naa ne mi na duburi amaa wadd yi na buñ ko waxee mooy wadd yi bi daalu muamale ci daal goo xam ne tomb tombuñ ko wadd yi ah moom ndox mu weex lay doon boo xam ne saqiin dafay génn ci lu bari ci mujjante ak saw foofu lay génn maa daal góor wu dëgër bu turee ndox ba mujjante turuwaay ndox wa wadd yi foofu lay mujjee génn ah dina war ci moom ak laablu ko comme ni laablu ak euh, tuurwaay ndox mm. wante dina gàttañ ci raxas euh, gémmeñu ak mm. euh, génne waay kese nag mm. foofu la yem amma sabab bi tax muy génn mooy yenn lu diis wala imsaaku may de téye téye ak mbàq ak wàcc waayu maa ul xaar yi mooy sabab yi tax alwad yi di génn ak yeneen yi di yooyu maanaam li mu wax naan raxasal sa mboolem pay mbirum nga aji yéene ñeel masiyu yi maa daal ñeel génn masiyu yi ànd ak bànneex ndaxte masiyu mu ngi bokk ci aadaas yi mu ngi bokk ci toj yi muy mu ngi bokk ci am yuy waral toj te moom ndox mu weex lay doon wu sew lay doon woo xam ne dina génn fa bànneex wu ndaw moo koy génnee nag fa bànneex bu ndaw moo koy génne bànneex bu ndaw mooy intiaz al batni te mu ngi am sababee ci ak tukkal mooy luy olof di wax koddal ñu baal mu ci baat woowule wala fo fo fo ak jigéen wala taqoo ak xool wala ak xelaat loolu mooy sabab yi tax almasi di génn wante bu génnee dafay war raxas mboolem zakkre si raxas ak wujuban wante ci lu benn charte na ànd ak yéene warut ak mu raxas ñaari unsiini ñaari wu yore waru mu raxas ko képp ku raxas na zakraam ngir génne ak masiyo eh, ci lu du ak yéene ah, mu julli ah, jullee moom kon jullee wér na ale mu tamit maa daal dañ waxoon ni ko raxasal mboolem piy wi ànd ak eh, yéene moom mu raxas piy wante yéene wut ah julli noonu mais terewul julleem wér na wante képp ku raxas na zakaraam ci génne ak masiyu ci lu ak yéene wa salla saxat salaatu alal mu'tamadi ah ci lu wér na wante mi ne wala xadasu toj nga na ko amina bawlul mooy saw wa réew ak ngelaw غاية جور مع الودي عند الودي واغسل رغسل جميع الفرج مولم بي ناوين بروم نعجيين للمزي يعني اك مزي اك يين مزي فكين جنن مزي لا باي رغسل ذكر يب داغي عندك اك يين وانت دون اك شرط غير شرط معنيه noppi na ci loolu mu ngi lay jàngal ñetteelu xaaj bi mu wax ne mooy asbaabu muy sabab njàpp wante boo demee ci borom euh, mat alajma bi indi na sabab yoo xam ne yu bari la nag mu ne as asbaabu yi sabab euh, yi sabab yàq njàpp nga ne ah maa daal mooy xismu ñetteel wi ci yàq njàpp te bu ñu asbaabu mooy jëm sabab asbaabu pilier la ay sabab asbaabu sabab yi sabab yi yàq njàpp mm-hmm. maanaam jamu sababun mm-hmm. te loolu mooy euh, sabab mm-hmm. moo tamit ne asbaabu yi yàq yi sabab yi yàq njàpp zawalul aqli mooy dañam xel bu ñu zawalul aqli nag dugg ne xel mi dafay taqali ko ak moom bi maanaam mooy muuru xel zawaalu aqli dafa bokk ci sabab yi nga xam ne dafa yàq ak njàpp te bu ñe zawaalu aqli mooy istitaaruhu mooy muuru xel ma ndaxte bu fekkee dafa dëñ ci ci dëgg-dëgg ci borom kooku lam yaw du dellu siaat ndaxte al aqlu nuurun xel leer la woo xam ne yaqzifuhu llahu taala fi l qalbi yàlla moo koy sànni ci xoli doomi aadama bu fekkee ne xel moomu dëñ na leer woowu dëñ na dootu dellu si mukk nag kon zawal aqli muuram xel nga koy firee wante doo ko firee ak dëñam xel ndaata al aqlu nuur xel leer la woo xam ne yàqasifuhu dana mu sànni leer googu allah yàlla taala fil qalbi ci xolu te leer la woo xam ne dafay yëg woo xam ne dafay jokkoo ak dimaax wuy yuur wi mm-hmm. yëg-yëg la woo xam ne dafa dem ba ko ci yuur wi mm-hmm. loolu moo koy permettre mm-hmm. yëf yi mbir yi nga xam ne mu ngi koy jot waaw mu koy yëg di ko jot benn par benn bu gaaree nag ak loolu bu ci muuru gaaree mooy waral wusuule chaas yëg-yëg yi nga xam ne da doon jokk ci loolu dootu ko mën a yëg dara nag dafay ñàkk ak tamise ak ràññee ngir lan muuru yi nga xam ne kel wi muuru na ko loolay wax ne asbaabu bokk na sabab asbaabu sabab yi yàq njàpp nga ne ah, mi ne zawal laqali mooy muur ak xel nga ne ko ah, mi ne imma benn mu lay leer la muur ak bi lan la mi ne imma benn بجن انت صدم جن أو بالسكر ولا تماندي أو بالإغماء ولا تي تقم ودمي تبرم أشماوي نون لكو اندي انديني وكان يق سبب سبب يق نجاب تنقض الوضوء زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر إلى آخره ما قاله moo tax képp koo xam ne jàpp na mm. eh, mu daldi di sosu ci moom ak eh, saddam jinne mm. wala mu naan ak naan goo xam ne goo xaraam la mm. walla bu dagan la bee naan googu mandiloo ko naat googu mujj koy mandiloo ba mu ñàkk ak tamise mooy ràññeem gi wala mu xëm dal di xiqeeku dellu ràññeeku delluwaat ci moom waaye in qada wuduahu njàppam yàqu wa wajaba alil wudu njàpp daf koy war thaniyan njàpp ñaareel li salaa ñeel ak julli bu fekkee jàpp woon نعطي في لوحة مورم قل إما بجن أو بسكر أو بالأغمى مؤن نبت يوقم دفعي ورا المورم قل صدام جن دفعي ورا المورم قل ماندي دفعي ورا المورم قل قم دفعي ورا المورم قل وانت نلو تمن دفعي ورا المورم قل moo tamit ad naw raabee naw ñeenteel wa ci yi nga xam ne dafay moor ñeelal xel mooy ad na mu saqil mooy nelaw yu diis moo ana lan mooy nelaw yi diis na mooy nelaw woo xam ne borom du yëg kuy dem borom du yëg kuy ñëw du ci dara ba xattaa bu fekkoon ne di yeewoon nañ ko ci loxoom mën nañ fecc buum du ko yëg bu fekkee téewoon na ab kurus kurus gi mën naa daanu te du ko yëg te en même temps tamit ay yuutam mën nay génn te du ko yëg ah, yooyu ah, mooy nelaw yu diis te dafay yàq am njàpp na bu mm-hmm. eh, yàgg ak jamono mm-hmm. wala gàtt na moo tamit nag naw nelaw tawil yu gudd mm-hmm. aw xas aw xasir wala yu gàtt in saqul ndem diis na ah dafay yàq njàpp bokk na ci sabab yi yàq njàpp moo tamit asbaabu sabab yi yàq njàpp nga nekk amina zawal aqal mu muuram xel imma benn ci muuram xel bi jinneñ ci sadam jinne aw bi sukkur wala mandi aw bil ixma wala xëm nawmun ak nelaw tawil yu gudd mm-hmm. aw xasir wala yu gàtt in saqul mm-hmm. ndem dis na mm-hmm. wante boo demee ci borom matt achma wi ma ne séddale na ko séddale wu rafet nee na fan nawmu waala arbaati aqsaam نلو ñeent xaaj lañ ko طويل ثقيل ينقض الوضوء غزير ثقيل ينقض الوضوء أيضا غزير قفيف لا ينقض الوضوء طويل قفيف يستعب من الوضوء مملي برم أسهل المساعد وفيه نوم طويل أو غزير إن ثقل دفعي يقن جاب لا غف مع قصري دفعي دوار يقن جاب وندبا إن يطل كوكو سبرين برم جاب wante mi ne nelaw daal mu ngi séddale ko ñeent xaaj tawil yu gudd saqil yi diis nelaw yoo xam dafa gudd diis te wax naa la nelaw yu diis mooy lan mooy nelaw yoo xam ne borom du yëg kuy dem du yëg kuy ñëw te mën nañ fecc ak buum wu ne wuñ ko takkoon te du ko yëg kurus gum téyoon mën nay daanu te du ko yëg yu tamit mën nay génn te du ko yëg yii dafay firi njàpp gudd na wala gàtt na wata mi ne laa waxuma na nelaw yoo ne xaf fa na ma xisari ànd ak gàtt maa nelaw yoo xam ne xasirun e, xafiif la kooku la yéen xudul wudu maanaam ne laa nelaw yoo xam ne xaf fa na ma xisari ànd gàtt moo ana lan mooy annawmul xafiif ana lan mooy nelaw yi gàtt mi ne nelaw yu gàtt mooy yoo xam ne borom ah dina yëg te dina yeewu ci bu téyewoon kurus mu daanu ret dina yëg ne kurus gi daan na ci loxoom wala bu fekkoon ne dañu yeewoon dara ci loxoom di ko fecci dina yëg na ñu ngi koy fecci mm. eh, loolu mooy alxafiif kooku falaa yanqidul wudu E, taala zamani aw kasura moo xam jamono gudd na wala gàtt na wante sopp nañ ak njàpp na bu fekkee ne jamono dafa gudd wante bu gàttee na kooku du yàq njàpp moo la waxuma ne la yoo xam ne xafa na maa xisari ànd ak gàttaay wa ak kon nag borom kooku du jàpp wante wanat ba sopp nañ ne la yoo xam ne e, di in yatul bu yàggee a sopp nañ borom jàpp mooy ne la yoo xam ne e, dafa gudd te woyof maanaam tawilun xafiif kooku yustaab min wudu waaw sopp nañ borom jàpp moo mi na wa sopp nañ nelaw yoo xam ne nat ban wa nelaw yoo xam ne ah, dafa gudd te woyef waaw ah, nat ban sopp nañ iniyatul bu guddee wala wa nelaw yoo xam ne iniyatul bu yàggee nat ban sopp nañ borom ak jàpp nag eh, noppi na ci loolu mu ngi lay jàngal ak laal yii nga xam ne bokk na si sabab yàq njàpp mi na aw lam zaman wala laala ka nga xam ne taxawaa da nga sopp ko bi tabiin ci jikko mu atabari ba da buñ xelam wala laala euh, koo xam ne ah sopp nga ko ci ak jikko aa ba da buñ xelam nag e moom lay borom mu al al ashmawi mm-hmm. di indi xaaj bu am su fa ne allamsu laal mm-hmm. eh, dafa nekk ñeent xaaj lañ ko sëdd mm-hmm. in qasada lazata wa wajadaha fa alil wudu wa in wajadaha wa lam yaqsidaha fa alil wudu wa in qasadaha wa lam yajidha fa alil wudu wa in lam yaqsid lazata wa lam yajidha fa la wudu alay ah loolu lay um, kii di wax file aw lamsa wala laal man koo xam ne tawaat sopp nga ko rafin ci jikko mu'tabar ba da buñ xalam maanaam bokk ne sabab yi yàq njàpp dañam eh, muram xel ci aslëf luñ jiitu ak laal koo xam ne sopp nga ko naka noonu tamit eh, bi lazzatin ànd ak bànneex moom laal ga te moom la wax naa la moom la boroom achma yi di wax ne in xasada bu ci jubloo ak lazzata bànneex wajidaa te am ko laal na kum bëgg juble ca bànneex am ko ca moo xam kum bëggut sax laal na ko juble na ca bànneex am ko ca njàppam yàqu na am na ko ca wante jubluwu ko ci woon njàppam yàqu na jublu woon ko ca wante amul ko ca njàppam yàqu na bu fekkee ne jubluwu ko ca amul ko ca ah, njàppam yàquwut ah loolu mooy ñeenteelu xaaj wa mooy jubluwu ko ci amul ko falaa wudu ale njàpp waru ko mooy tamit aw lamz man wala laal ka xam ne taxawaa da nga sopp ko bi tabin ci jikko moo atabaru ba da buñ xalam bi lazzatin ànd ak bànneex moo ataadatin ba da buñ baaxu walaw zakkarin ak donte góor nga laal sax te jublu ci bànneex am ko ci njàpp lu yàqu na ah jublu ci bànneex amu ko ci njàpp lu yàqu na am ci bànneex jublu ko ci woon njàpp lu yàqu na jublu woo ko ci woon amoo ci njàpp lu yàquwut kon laal googu dañuy wax ne kii laal foog mu nekk baalix mm. mu nekk mesure moom aji laal ji mm. amaana ki ñuy laal tamit mm. foo mu nekk koo xam ne ku la am ñu ne addi ah man naa ñàkk nekk sax ku majeur wante foo mu nekk moom it ku majeur koo xam ne dana jot a bànneexu ci moom donte ak weem la wala ab karawam la sax mm. ah wala ak atam mm. ah ci la sax oh, dafay yàq njàpp bu fekkee jublu nga ci lal googu ne niñ ci jàngale woon mm. moo tax kon aji laal ji dafay nekk baaleex ku mësër ah ku ñuy laal tamit dafay nekk baaleex bu fekkee ne laal gi daf ci jublu bànneex maanaam dafa jëng jëm ci ki laal mm-hmm. ah jubli ci ak bànneex mm-hmm. waaw wala mu am bànneex mm-hmm. ci lu ak jublu ci jamono ji nga xam ne jëmmam jaa ngi dajee ki muy laal wala bu fekkee jubluwu ci bànneex amul ci bànneex gannaaw laal gënat ci la ko am ah kon nag ba léegi njàppam yàquut bi maanaam jubluwu ci bànneex ci laal ga amul ko ca wante gannaaw ba mu laalee ba noppi na ba toog ab diiret mm. eh, mu doog a am bànneex ca laal ga mm. kooku fa laa yéen du loolu du tax mu njàpp yàqu na mm. moom lay wax ne naka noonu wa masu ixli laal zakkara mm-hmm. laal zakkara tamit dafay yàq njàpp mm-hmm. ixlil buñ ko waxee mooy zakkara mm-hmm. bi batnil kafe ci biir euh, tënk tënk bu ñu ko waxee mooy lii hmm. bu fekkee koo xam ne hmm. bu ña zakkar laal zakkar lañ ci namm hmm. net mooy zakkar ak aji meseur ji wante zakkar boppam nag waxuñ mu laal zakkar ak jàmbur koo xam ne meseur na man na mu kalaf bu fekkee na biir tenqam yi dafa laal zakkari boppam ci lu du benn ak digale solo tubéy solo dara ah kon nag njàppam yàqu na متمن ومسيح للأنلال ذكر ببطن الكف في بير تنخ وانت لني نمونا موي مسل بالغ ذكر نفسي المتصل وقمنا ذكر سي جوكوك بوبم وانت مولال ذكر اك جامبونات لول تاخو مو ياق نجام ci biir tënkam wala ci wet weti tënk ya mooy wala ci biir waaro mi sax la ko laalee laalu tënk waaye ci biir waaro mi nii ren la mm-hmm. wala ci peg waaro mi mm-hmm. wala ci cetu boppi waaro mi la mm-hmm. donte benn baaroom wuy dolleeku lan léeg-léeg da ngay gis doomi aadama am yeneen baaroom fii bu dolleeku muy juróomeelu baaroom wante charte muy baaroom bu fekkee buñ ko kaataa mu yëg mi nga ñoppitee mu yëg baaroom woowu dont woowu moo laal zakkare wi sax ah kon nag njàppam waaw tamit wa mas ixlii la ak laal zakkara mm-hmm. bi batnina kafe ci biir tënk mm-hmm. aw bi isbeen wala baaroom mm-hmm. a ah, kooku njàppam yàqu na wamraatun jigéen nag bil xulfi ci wuute a ah, jigéen laalam péyam nag a ah, olama yi dañ ci wuute nag wante yeneen tubi alayhi salaam waxoon na sax ci laal zakkara ne ida massa ahadukum zakkara fal yatawadda képp ku laal na ci yéen zakkaraam a na jàpp amaanate bu fekkee du firi ak njàpp ci laal goo xam ne wéet na ci ak yëg-yëg ak soppandiku mooy baaroom woowu ma wax la bu fekkee ne du yëg ah te am du soppandiku bu fekkee laal na zakrase du yàq njàpp comme ñàkk laalam ci tayeeg wala ci njuum ak ci la benn ak digale waaw oh, maanaam bu fekkee dafa laal zakkaraam ci kaw ak digale ak barage mm-hmm. bi maanaam sol na tubéy laal zakkaraam waaw mm-hmm. ah, dara ne ko bu fekkoon ne képp ku laal zakkaraam ci kaw dara mm-hmm. njàppam yàqu kon xayam wante bu ñu laal zakkara nag bu yàq njàpp day fekk na tubéy doxu ci wala dara doxu ci zakkara sa ah, mu laal ko biir tënqam wala ci pegg ah, tënq wala ci biir waaroom wala ci pegg wala ci bopp waaroom yi bu ko ci mënta laal bilaa xaayil ci lu benn ak digale kooku yan taxidul du njàppam dafay yàqu wante bu fekkee ne am na lu dox ci diggante walaw kaana xaa'ilu xafifan mm. ah kooku du yàq njàpp mm. naka noonu tamit ku laal buntu suufam mm. wala mu laal ñaari woy yore ya kooku tamit du yàq njàpp wante mi ne wa wamraatun jigéen nit bil xulfi ci wuute jigéen nit wuute nañ ci laal laal ak jigéen payam ndax dafay firi ak njàppoo këm ni nga xamee ne góor bu laal zakram noonu lay njàppoom yàqoom am déet wala maxey ne wamraatun bil xulfi jigéen de moom wuute nañ ci alal aqwal ci ay wax na am ñi ne yan yantaqidu wudu'a mutlaqan bu jigéen laale payam njàppoon dafa yàq mutlaq benn wax jàngoo ñu beneen wax ji laa laa yantaqidu du yàq njàpp mm-hmm. am na ñoo xam ne bu ko laalee mm-hmm. njàppam du yàqu mm-hmm. ñetteel wax bu mooy illaa lu de isa altafat bu lunkalee baaram wa aw xabata wala mu ngëpp tu tuñu payam wa ah, njàppam yàqu na wante ñaari wax ñaari yi jiitu yëpp wax yu feebul la ah, qawlaan daifaani لني سكنك موي لا ينقض وضوء مطلقا مزت ظاهرها او غبت عليه او التفت آه لولو آه ام نيوخلو وان تبو دمي تي ينن ولا بعد يوخني نيابوم دال بلا مو ياق موي ان التفت نيم لونكل نبار ال طاف بن توخي موي ان تدخل مدوغا شان لف من اصابي ما تي بارو فيك دا جيل لن تي بارو دوغا تي بي ام آه لول موي ال طاف موي اك لونكل بو نيابوم ياقون kon na nga déggee ci ne jigéen daal laalam payem mm-hmm. kooku xulfun ak wuutee moo ci nekk mm-hmm. ñii ne dafay firi njàpp mutlaq ñii ne ah du ko firi mm-hmm. ah mu lunkal baaroomam ci ah, payem ah wax ju nag ah, ñenn ñi loolu lañ wax ne mooy yàq njàpp waxte mi ne baabu nawaqid buntu firi eh, njàpp yan xudoo de dama firi ak njàpp ar riddatu murtad aw shakk wala sikk goo xam ne xadas xew na fii tuuran ci laab aw naqdin wala ak toj koo xam dafay sikk ci ak laab am naa njàppam am njàpp njàppam yàqu na wala muy sikk am toj am naa tojam amu toj ah njàppam yàqu na wa zabtul ak jiitu muy sikk ah ci wóor na ko jàppoon na wóor na ko tojloon na muy sikk ana ban ci ñaari moo jiitu njàppam yàqu na ah noppi na ci loolu dina wal xadasu tojjee boo ko bëggee xam bawlu mooy saw wa riixun ak ngelaw gaayatu nem الودي عندك جنك ودي وغزل رغسل جميع الفرن مولم بي ناوين ميروم نعجين معنا ناويين وانت وي موت من الناوين ميروم نعجين للمزينيال المزي نبتنا جلول من أسبابه سبب يقين جابو زوال العقل موي دنيم قل معنا بنيا دنيم قل موي مورم قل إما بن تي مورم قل يوي بجين انت سرم جن أو بالسكر ولا مندي أو بالأغمى ولا قم نعطي بن قل تي yi nga xam ne mooy muur xel mm-hmm. ñeenteelu xeet xeet wuy muur xel nag mm-hmm. mooy naw mu nelaw mm-hmm. ah dafa bokk ci naw yi nga xam ne dafay muur xel Euh, dalaw yoo xam ne tawil yu gudd la aw xasir wala yu gàtt id saqul ndéem dis na dafay yàq njàpp laa waxuma nelaw yoo xam ne xaf fa wooyeef na ma xisari ànd ak gàtt ah, borom du yàq njàpp wa wa in yettul wanat bun sopp nañ in yettul ndem gudd na moom nelaw ya sopp nañ borom jàpp na noppi na ci loolu mi ne aw lamza man wala laala ka nga xam ne tax waa da nga sopp ko bi tabin ci jikko mu atabar bada buñ xalam bi lazati ànd ak bànneex mu ataaj bada walaw zakkaran ak donte góor nga doon laal sax njàpp yàqu na wa masu ixlini laal zakkara nga ne ko ci lan mi ne bi baatilan kaf ci biir tënk waaye zakkara ak boppam wi jokk ci moom dañoo wante bu laale zakkara ak keneen ci biir tënkam yàqu njàpp aw bi isbain wala baaroom la ko laalee njàppam yàqu na wa mraata na laal piyam bi xulfin ci wutee wala may wute nañ ci ne ñii ne njàppam yàqu na mutlaqan ñii ne njàppam yàquwul ñii balaa njàppam di yàqu daal mooy mu def iltaaf mooy mu dugal as lëf ci baaroomam ci biir payam loolu mooy yàq njàpp wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbi yana yàlla may dégg topp defal ñu ko defal leen ko alhamdu awali daawan wa axiruha walhamdulilah min xiin ila xiin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh 80 bileni gingi